wa hakaza naka tamit yii ñu lay waaj a wax bu xewee ca biir julli ga ab sujoot waru ca te julli dana baax abdun jaamab yàlla boo xam ne salla julli na ala basar ci ngën ji mbindéef te julli mu julli ci yonent bi moom jaam ba li sàmmi sikri la ko waral daa dégg am kuy romb tudd yonent bi moom jaamab yàlla bi mu nekk ci biir julli gi dégg turu yonent bi mu ne sallallahu alayhi wasallama sallama bu waxee loolu te fekk mi ngi ci biir julli lu tax mu wax ko mi man zakara turu yonent bi ma nga bàyyi ko ca jaamab yàlla bay romb kay julli tudd yonent bi kay julli daldi wax sallallahu alayhi wa ngir dégg gi mu dégg turu yonent bi mu wax ko te fekk mi ngi ci biir julli muhammadun muhammad moo mi nga xam ne salla alayhi leehu ko yàlla dolli teraanga ak jàmm musalliman ta dolli koo musal wa kulli man ak képp koo xam ne waa leehu méngoonte nga ak moom ci ànd moom ci diineem ji sallallahu alayhi wa moo xam nag ba jullikat bay tudd julli ga mu julli ci yonent bi saaka julli googee mu julli ci yonent bi xamdan moo ko tey wax ko aw saxwan mbaa far rek daa juum wax ko juum te lool xaraa da gaar ndax dafa tàmm fu mu dégg turu bi rek dal di julli ci moom aw fii xiyaamin moo xam ba muy julli ci yonent bi te nekk ci biir julli gi cib taxawaay la nekk aw julloo sin moo xam ba mu déggee turu yonent bi te julli ci moom cib toogaay la nekk ci biir julli gi xat jara fu mu di dawee ci biir julli gi la ko loolu dale mu julli ci yonent bi ndax dégg ku tudd yonent bi mu ne loolu lépp dara newu ca julli ga dina baax te ab sujoot du war ndeysaan waa man xadd xaraa képp ku jàng ci biir julli li sooratayni yaari saar nga teg ko ci ginnaaw fatiha ci wenn saar lañ ca war a teg yow nga far teg ca yaari saar aw ak sara mbaa ëpp sax yaari saar mbaa sax aw xaraja ngay jàngu saar ba yàgg nga bàyyi saar wa aw xaraja minha waxtamada lil xayri mbaa nga génn saar wa dëkk mën weneen saar di ko jàngi bàyyi fa yaari saar ya nga jëkkoon a jàng nga bàyyi ko fa te ak gut dëgg malaat weneen saar mooy waxtamat te nga dëgmal lil xayri jëm ca weneen saar aw xabla tamaamin mbaa sax lu jiitu saar yooyu yépp di jeex nga bàyyi fa njàng ma rakkaa daldi jàpp ca om ya maanaam daldi rukkoo mu ne yooyu yépp bu xewee noonu te ba ngay rukkoo xabla tamaamin lu jiitu saar way jeex jàpp nga say om bàyyi fa saar wa loolu yépp li muy bari bari du julli baax fala sujooda kenn du sujoot fil jami aj ci mbooleem yooyu ñu dajale wax la ko lépp du tee julli baax te ab sujoot waru ci bàyyi na foofa wama aati sujoodun déet ab sujoot di war alal musiiri ci kii nga xam ne daa nekk ci biir julli gi di junj ma nekk ca biir julli ga waaye ma ngay junj fii salaatin ci biir julli gi junj ga nag ma ko defe bi yaddin ci ay yoxoom aw raxsin mbaa mu junj ci boppam junj ci loxo mooy mel ni yaa ngi julli nit ñëw taxaw ne la ana muudu mi ngi ci biir nga joxoñ sa loxo ca biir di ko wax ne ma nga ca biir ab junja ngoog junjab loxo la wala mu ne ana Ablaay dem na nga dag-dagal sa bopp di ko won ne demut junjab boppa ngoog mu ne xeeti junj yooyu du yàqu julli te ab sujoot waru ca ndeysaan wa kullu man képp koo xam ne ma ngay julli xadd takka raraa mu jàng ñaari yoon faatihatal kitaabi faatiha mu tedd ma mu jàng ko ñaari yoon li ko waral li ajjili saxwin ngir njuumte ixtara gog gaar na ko ci biir julli mu jàng faatiha ñaari yoon waaye dafa juum rek kooku fa bax bu julli jeexee ba mu wax asalaamaaleykum na ko sujootal baxda salaam muy ginnaaw sëlmal wa insa bu dee lii mu def maanaam jàng fatiha ñaari yoon dur yi xamees na ne moom it mu xam ne li xam di cik la ko def fa saahirul butlaanu leer na nañ ne julli ga yàqu na indal laxdari fa abdurahman laxdari bàyyi na foofu wasoon xifaadin kay boroom ak yayyaarlu bin inaahin jëm liiru koo di jàppi ay te nekk ci biir julli kooku laysa lahu waratu ko rujoo muy dellu ginnaaw te eggut muy jógaat di taxaw te eggut ba jàpp ci oomam waruta dem bay waajaru koo bàyyiru koo ba jógaat taxaw ah, ah, lay lahu waru ko rujoo muy dell ginnaaw jëmaat ca taxawaay ba li sikri sooratin ngir fàttaliku saar wa ca ginnaaw fatiha te jàngu ko kon jullikat bi bu fekkente ne mi ngi julli dem bay jëm di jàppi ay óomam na xam ne jàppi ay óom farata la su ma jëmee ca óomi nag di ko jàppi fàttaliku ah mankat fate faatee bi ma ko jàngee saar wi ci topp jànguma ko woon kon naa jógaat taxaw jàngaat ko ah ah dañ koy tere bàyyil saar wa noona te dem jàpp cay oom ndax jàppi oom farata la te saar la te kenn du dëgmal farata di ko bàyyi di arrière di dellu ca sunna ndeysaan xam xam baax na xammee leer na wóor na allahu akbar kon du dellu ginnaaw na tëb sunna moomee di saar na jàpp ne kon wàññi na benn sunna te wéyal ak julleem allahu akbar ndeysaan bu boobaa nag mu xam ne saar wa ñetti sunna ca laxasu jëmmi jàng saar wi sunna la taxawaay bi nga taxaw di jàng saar wi sunna la biral ga mbaa yelu ga saar wa sunna la kon ñetti sunna ci laxasu lu muy def na jàpp ne wàññi na ñetti sunna kon lu jiitu sëlmal la koy sujootal na julli ba julli jeex mu toog taaya ba taaya jeex mu sujoot ñaari sujoot toogaat taaya muy xabla salaam lu jiitu sëlmal bu taaya taaya ju mujj jooju nag mu wax asalaamu aleykum julli baax noonu lañu koy defe bàyyi na foofu yaa ngi jàng téereb sëriñ Tuubaa bi ñuy wooye al jawharu nafis dila la jàngal lëg-lëgi fiq muy téere bi jàngale julli di joxoñ farata ya ak sunna ya ak boo ca juumee ni nga koy defaree ba sa julli baax yaa ngi ci page numéro 37 ci téere bi ma yor wasalaamualeykum